برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان xam-xam bu ne balaa ñu koy jàng war nañoo wax xam-xam bi lan la ni tudd ak nu mu toll ci kawe xam-xam bi turam mooy xam-xamu tafsir li ko tax a mooy firi wax yi nga xamante ne yàlla wax na ko wàccee ko mu jëm ci ñun ndax suñu teranga ci la nekk mm-hmm. firi tafsir ak taawil yemuñ tafsir dafay jugee ci maanaa boo xamante ne dañ koy tuxal taawil jugee ci maanaa boo xamante ne ci xel la aju bu dee maanaa buñ tuxal amu fi waaye na mi ngi firi téere bu gën a màgg ci téere yi jullit ñi moomee nañ ci àddina lépp naka lañ ko moomee ci téere alquran mooy dañ doon jëfee ay ndigalam bàyyi jooy ci leen yàlla may lim leen may lépp ci teraan ndax yàllaa leen ko dig te yàlla luñ dig dana ko matal bañ démé nak ba yàlla nattu julli ñi ñu génn ci ndigal yi yàlla tamit ci la indi ay mbiram ndax yàlla mus a indi nattu loolu ne nit ñi dañoo teg ndigal banu Israël yàlla ba mu leen mayee seen may may yëpp teg leen ni dugg leen bëti Maqdis te boo leen dugg na ngeen wax loo xamante ci si sippee seen bàkkaar loolu xetatun bañ bañee rek ba soppi li yàlla wax yàlla lañ ci tek ne fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min assamai ma kanu seen leen wàcceel nattu feebar boo xamante ne day wàllaate comme rek ngir liñ tegg ndigal yàlla yi kon jullit bi xéewal li ko yàlla dig ne dina ko may ci ab jullitam pour mu sax faaw mu sax si ndigal yàlla yi moo tax Baye wax ne wala arda wala arda taxiran wa lastu mubaddilan fa madhabu gayri lhashimi lastu adhabu musuma gërëm soppi li ma fekk yenentu bi nekkoon ci loolu laa waaye nag téere bi yonent bi bañ ko daan wàcceel wax da doon yàkkamti di wax bañ a fàtte di ko yàkkamti yàlla ne ko bul ko yàkkamti téere bi danañ ko jàng danañ ko firi danañ ko dajale kenn mës a gis téere buñ dajale ne alquran kër goo dugg na ko fa fekk tafsir nañ ko te wattu nañ ko tëm fa jëm yemoon démb waa dana yàlla deel nañu si alquran ne anna hada alkitaaba naka téere bii di alquran laa budda an yuqraa faaw ñu jàng ko fa quri'a ñu daal di fa quri'a hada alkitaabu qiraatan lam yusbaq laha masin ñu daal di ko jàng jàngin woo xamante ne mosuñoo jàng mosuñoo gis luñ jàng lu mel ni alquran qara'ahu nnaasu nit ñëpp jàng na jàng nañ ko qara'ahu muslimuna julli ñi jàng nañ ko pour jaamoo ko yàlla wa qara'ahu alkuffaaru yéeféer yi jàng nañ ko mm-hmm. am na yéeféer yi ko jàng ngir dëggal li nekk li ñëw ci alquran jaaree fa tuub am nañu ko jàng ñoo xamante ni weddi moo leen tax a indi rek waaye jàng nañ ko wa qara'ahu alxadid bàyyi mu ne wëñ sax jàng na ko ndax rajo yi wëñ lañ ko defaree te wëñ yaa ngi jàng alquran wa qara'ahu kullu shay lépp loo gis rek mi ngi jàng alquran la tajidu l ana idaatan doo gis benn rajo lu dul ne ñu ngi ciy teg alquran xatta fi baris aadaawul islam waa Paris sax nga xamante ne noonu islam lañ seen rajo yi ñu ngi ciy teg alquran xataa mm-hmm. fii London Angleterre noonu adaawul islam xataa fii Israël ci Israël ba tey ñu ngi fay teg alquran xataa fii mahalli qadasatil baaba fi nga xamante ne fa la ñuy màggalee baaba ca Vatican sax ñu ngi fay jàng alquran mm-hmm. laa tajidu idaatan doo fekk benn rajo bil arabiyati ci arab taftaxu kalaamaha illa baada qiraati alquran mm-hmm. rajo yëpp gannaaw alquran dañuy door a teg seen wax yi hada kama waadana allahu lii dafa mel ni ni ñu ko yàlla digalee noonu la amee ان هذا القران يقرا يلا وخن داني كو جان كو نين كو جان ايضا قراءه ما سبق مثلها لاي كتاب جان نين كو جانين و خامتاني موسين كو جان بن تيري تي تيري يكو جيدو تواتي اسمان nga خامتاني نيغي مات تي تيمير اك نينت ثم ان علينا بيانه تي نين يالا لي كاي ليرال تي نين لي جوغي وعدم بيان القران يالا déel nañu ne alquran danañ ko leeral ba ñëpp mun koo dégg ndax alquran kenn mënut a jëfee ay ndigalam lu dina da nga koo dégg ba mm. fussira alquranu aydan ñi daal di ko tafsir leeral ay maanaam min altafasiri fi lmuallafati wa majalis altafsiri min zamani nabii sallallahu alayhi wa sallam ila yawmina hada ngir yàlla digee bu mu ko digee dañuy di tafsir alquran ñii jël nañ seen këyit jël seen temps tafsir alquran tafsir yu màgg hmm. ñii toog nañ li ci jamono yonent bi ba jamono tay bi nit di mun am di toog di firil alquran ñeneen pour ñu mun koo dégg mun koo jëfee hmm. hada lam yusbaq lahu masil hmm. lam lam yusbaq lahu masil lu mel nii mosu am te du mosu am ci beneen téere bàyyi mu ne xultu wax naa ne inna hadihi luhud dihali ak xalaas yi ñett mooy danañ ko jàng danañ ko dajale danañ ko leeral حقق الله لنا فيها ما وعدنا به يلا نمني كدجلين نمني كدجلين جبني كنن لك أمره حتى قوي رجاؤنا أن أن كل ما وعدنا الله به في القرآن نجده كما وعد يلا دفني كدجل البدجل السنيا كارنه لنا لمني دكت القرآن لك لنا كدجل لفك لتخ مدجل نكون نمشي جولي دين بعند جولي دين نك سنيت الجنة كجولي دين جيس يلا نمشي دين إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ñuy dugg aljana loolu la ñuy njëkk a wax yàlla ne li mu ñu diggaloon noonu lañ ko gisee te yàlla ëpp na muy diggal ni te du ko may ba tafsir alquran yi ilmun wa ashraful yi tafsir alquran mooy xam-xam bi nga xamante ne moo gën a tedd ci xam-xam yi ndax mbir li ko teddal mooy li muy li muy sharafu shay bi sharaf sharafi ma yatanawaluhu alquran lay firi moo tax mu mujj nekk xam-xam bu gën a tedd ci mbir yi lenn sharafa kulli almin bi xabi sharafi mutaalliqihi teddaange xam-xam bu nekk mi ngi nekk ci kem dayoog ci li nga xamante ne loolu la aju moom ajoo ci wax yàlla rek la gën a nekk ne moo gën a kawe wa hada kalaamullahi lii wax yàlla la nisbatuhu min kalaamina ka nisbati alxaqi min alxalqi comme tolluwaayam ci wax yi ñeneen ñi mi ngi mel ni tolluwaay mindeefi ci tolluwaay dëgg mi nga xamante ne mooy yàlla waxi yàlla tamit tolluwaayam mi ngi mel ni tolluwaay ak suñu suñu wax moo gën a foor fuuf huwa ashrafu jamii al ulumi mboolem xam-xam yi xam-xam alquran moo leen gën a tedd walquranu lahu asmaun adidatun القرآن أمنا أي تري بري تفصل جبو وكثرة الأسماء بري تور عربي أن تدل تكتل على شرف المسلمات تبانج لنا خمن تنمو لن تدل ورد في القرآن خمسة وخمسون اسما نتلنا القرآن جروم فكي أب جروم تور يو خمنت خمن تنلب مملجغو هو القرآن ما القرآن وهو الذكر ما الذكر بتاع ترسي تورميلا الآيات البينات كاوتيبيولاري والعائلاري تترمل لكن هذه الأسماء كلا تريب إذا تفكرت بوخلاتي في معانيها تعيمانا ترجع دنجسنا دفايدا إلى اسمين سنيارته هما نمنار القرآن والفرقان turi alquran yi ñuy bëri bëri yëpp ñaari tur feeg nañ leen alquran bi nga xamante ni mooy firi dajale ndax arab yi danañu wax ne qara'tu al maa fi al xawdi ay jamaatuhu fihi والفرقان موي تاقالي تي نيت فامو بولين تاقالي اك بولين بور مونا دون جامو يالا دغ دغ كما ان اسماء الله تبارك وتعالى كني ملني تري يالا اي اذا فكرت فيها بوج خلاتي ترجع كلها الى الجلال والجمال يب دني ديلو تي ماغاي تي تارو يالا اك تي ويغو نياري مون نيو تاقاليكو فالقران من القري الذي هو الجمع القران من جوغي تي بات قر بيغا خامتني موي فيلي جمع مفسرون يبري ام am nañ ci wuute yu bëri donte ne bàyyi indiwu ko ndax dafa yà jàngale bi laaju ko waaye nee nañ turi alquran bi murtajal noonu rek alquran alquran amul benn asl ñii ñu ne ci xar la jógee ñii ñu ne déedéet summi alquran li kasratil xiraa lu ñu ko war a jàng moo tax ñu koy tuddee xiraa waaye ñu jël di bàyyi wax rek huwal jama wal furqaan mooy huwal jama wal furqaan furqaan min al farq mi ngi tuggee ci li tàqali alladi huwa tafriqa fa inna al abda جام بي دغ دغ بو بوغ نيك جام يالا لا بودا بين الفاتح والجمعي مونتا نياك مو ديغل مو بولا ديغل تي بولا اتاقلي فمن لا فرق له فام تاقلي لا عبوديه له لا عبوديه له فام جامل تي يالا ومن لا جمع له فام بولا لا معرفه له فام معرفه تي والفرقان والفرق فرقان خاج بي نك نياري خاج فرق بو نيك هو الاحتجاب موي بالخلق عن الحق تبارك وتعالى nit ki nga xamante ne dafa am kiiraay bu dox ci digganteem ak yàlla te ni nga ko amee ci jaam yi boobu mooy farq bu njëkk bi wa hada xijaabun loolu xijaab la wa farqun wa maarifatul xalqi bil xaqi am na beneen tàqari boo xamante ne ci mbindeef bi ngay jaaree ba xam yàlla mi nga xamante ne mooy dëgg kon ñaari farq moo am farq bu njëkk bi mooy nit ki dafay seede am ak jaam yi ba mun du mun a seede yàlla boobu kiiraay bu mag la bu demee ba yegg ci من ابصر الخلق كالسراب فقد ترقى عن الحجاب موي نتي امك من لي في لي جار با خم يالا بوك موي فاك بينا خمانتاني معرفه الله تبارك وتعالى لي تكتلي لين خلق خلق السماوات والارض بالحق يالا دفا بيندك اسمانك سوف لب دكو بيندي تي دغ كون كوتي خول با يمتي لول كي راي لا واي كوتي خول مون كو يغري تي خم يالا لول موي كمال المعرفه وهذا الفرق الذي يرجع وهذا loolu mooy ak farq tàqale bi nga xamante ne dana dellu ci jàmm bi gannaaw bi nga xamante ne dafa jeex ci yàlla wal kamaalu gannaaw bi nga seedee ne lii daf lay yóbbu ci yàlla loolu kamaal la moo tax ñu naan alfanaahu baad alfanaahu baad alxijaabi kamaalu fanaa bi jàmm bi di am ci yàlla jeex bi muy am ci yàlla gannaaw xijaabam loolu loolu mooy mat dëgg-dëgg dégg nga leennahu yuxti kulle di xaqin xaqahu dafay yegg ci mun a jox lu nekk ak cëram donte ne xam ne ne بن جم رك مو في صح موي جم يالله تبارك وتعالى نخ الذات جم نيار امنا ذات المعدومه كالعنقاء دنجي ديغ رك واي كين غيسوكو موتا بن وي كتو خو نانا البوم الغول والبوم والعنقاء ثالثها اسماء اشياء لم تخلق ولم تكن تريني في نك واي كين مسلمه غيس بنن ذات بي موي ذات الموجوده كان يعني خاد لي قسماني ذات موجوده موي ذات الباري تبارك وتعالى بكم مسدن وذات وذات موجودة تلحق بالعالم موي ذات الخلائق دبي جوجي غناو مات جي نك موي جام بي جيخ سي يالا غناو حجاب با باري لول موي مات نيم نيكي مات موي ن لو نيك داف كاي واتي واتي وايام تا عارف موي كيغا خامتاني لو نيك داف كاي واتي واتي وايام فلا فرق فرقه يحجبه يحجبه عن جمعه ولا جمعه يحجبه عن فرقه فرقم دوكو حيت دوكو كير ولس بولوم بولوم دوكو كير ولس تاقلم فلهذا اقتصرنا على شرح اسمين باي mu ne ngir ne ñaari tur yi ñoo dajale mboolem turi ني yi moo ني ñi ñi sax ñi ñi gàttal ci firi ñaari tur yi nga xamanteni matna juróom ko juróom moo nga xamanteni moy mooy alquran alquran xadaratul aljami hadra bolo moy alquran moo koy tegtale alladi wa xadaratul alahadiyya te moy misal te yàlla bu sel bi لا شيء غيره تبارك وتعالى لدود في يالله بحمد تجام بموني شيء يقول الدنيا دففار حمين لنن لدود يالله حضرة القدس عند محت سواها لا سواها يا من يروم لقاها هو الله الأحد موي يالله موي كان والفرق حضرة والفرقان حضرة الفرق ليس كمثله شيء هو السميع البصير في فرقان لي جال بخم حضرة الفرق لدود يالله أمر لن لمن مم كمن يالله أمر لمن يالله أمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mi ngi tàmbalee ci maa ngi muslu yàlla ci seytaane bi nga xamante ne dañ koo soril yërmande yàlla mu ne al xikmatu xikma xikma bi nga xamante ne mi ngi am ci tàmbalee alquran ci baat bi mu aoudu billahi min asheytaan rajim yi mooy ne nit kuy dugg ci buur dafa soxla fëgg buntu bi pour am ndigal yàlla sax wax na ko laa tadxulu buyuutan ghayra buyuutikum hattaa tasta'zinu kuy dugg ci buur dana soxla ndigal ana yàlla mi nga xamante ne mooy buuri buur yi moo tax wal mutakallimu لما اراد الشروع في قراءه كلام الله تبارك وتعالى فانه يشرع في دخول حضره الله تبارك وتعالى كيف كو خمنتني ياغي جان القران ما ديمي باي جان القران ياغي واج دغو سي بي يالله بو سلمي تبي يالله كو فاي دغو ورغا ساكو ديغن ورغا يغلو يغلو بوب ما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تخاو بلاص كون كان غا ورا ديف يناجي بكلامه نخ دفاي ديوال يالله وخم فلهذا فلهذا تنظف ونظف لسانه للمتخ موي ستل di setal làmmiñam li mu koy setalee mooy maa ngi muslu yàlla ci seytaane bi qawli aoudu billahi min asheytaani rajim qala taala yàlla wax na ci alquran ne ida qarata alquran boo jàngee alquran fa said billahi min asheytaani rajim na nga muslu yàlla ci seytaane mi nga xamante ne kuñ sori yërmande yàlla la aoudu billahi min asheytaani rajim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na si hakada allamani jibril jibril nii la ma ko nii la ma ko jàngalee anil lawxi jëlee ko ci àlliwoo bi anil xalami jëlee ko ci xalam bi mu jëlee ko ci ci بندكاي مجري كو سي يالا ميغا خامتاني تودنا اك ماغايم بهذه السيرة أفضل السيرة للسيادة بيمو غن تي فاصون ييغا خامتاني نينغ كاي وخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل نيو كاي نيخال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من واي بيغنا وير تينن تي بيجلي كو جبريل مو جلي كو جوغي با سي يالا موي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ ما التجيو مع المسلم يا الله الى الله تبارك وتعالى مع المسلم يا ديكو ديمبالي كو ماغي ديمبالي كو يا من الشيطان شي شيطان مني خمنتين مو إبليس الشيطان باتو شيطان مني جوجيشي شطن بفري سوري وإبليس كان عبدا مقربا إبليس جامو يالا لون بو خمنتين كو جيغي جيجيون يالا في حضرة الله تبارك وتعالى في بي ام بي كما سيأتي قسام دنا ديك تي كنم ديغا دنا ديك تي سورة البقرة يالا دالكو سوري دالكو ربو soril ko PM bi nga xamante ne mooy PM bi mag بي te summiye cheytaanan ñu daal di ko tuddee cheytaan mooy kuñ soril pay yàlla bi ak kuñ soril yërmande yàlla wa summiya iblis baadama kaana ismuhu azazil gannaaw loolu ñu tuddee ko iblis ba mu nekkee tuddoon na azazil ci turam tuddoon na azazil loolu ci luga saryaaniya la war rajimi bi maana marjumin mooy kuñ sànni te soril ko yërmande yàlla tabaraka wa taala lu tax bàyyi tudd iblis ak ni mu jege woon pay yàlla bi ak mu mujjee soree mooy ne jaamu yàlla bi li fekk yaa ngi ci mbaax da nga xamante ne du sa kàttan du sa mën-mën waaye xéewalu yàlla la sant rek moo la ci war ndax ay shukru saydul mawjudi wa xaydul mafqudi pour mu sax lu dul loolu mun nga baa jugee iblis ci kanam bàyyi dana indi asamaan bu ne am na ñu ko fa doon ooyee mm. fii abdi ñu ko doon ooyee fii zaahid fii aarif fii nangam waaye loolu lépp ci tur bu mujj mooy iblis wala yaadu billah mooy nit lu mu baax baax baax mun naa tarxiis mm-hmm. lu koy dimbale ci tarxiis boobu mooy baax bi lu mu bëri bëri mu delloo ko yàlla te di ñaan yàlla yàlla ndolal ci mbaax moom mm-hmm. wa taala matrudun an il jannati dañ koo dàq ci aljana matrudun an il samaai ñi dàq ko asamaan matrudun an rahmatillahi tabaraka wa taala ñi dàq ko ci yërmande yàlla gi mm-hmm. te fu ne jaamu na fa yàlla nangami junne a aoudu billahi min asheytan irajim istiaadatu al abdi billahi علم على الجلالة من الشيطان الذي علمنا الله أنه عدو لنا وأمرنا أن نتخذه عدوا يلا دمبلكو بمي دمبلكو جنبي دمبلكو بمي دمبلكو يلا تي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دفني خملنا شيطان سنون لا يلا خملنا شيطان سنون لا تدنكو ورا جابو نون أما كان تي مفسرون تبنا فوكين بير عشرة من المغرورين بوينا شنو من علم أن الشيطان عدو ان ان الشيطان عدو له ولم يتخذ عدوا وخمنا ابليس نونا من تجافي وكنا نكون بوك لا شنو خمنا دنيا وامرنا ان نتخذه عدوا واتخاذ العدو عدو ان تتحصن منه وتستعيذه شنو جابو نون رواية كو جابو نون ما ينفخ بدف تتسين ديجن دي مسلو يالا تيمون والعبد ليس عنده الا رب والعبد ليس عنده الا ربه جنب امكنكم دي مبلكو كرو يالا نخ من استعان بغير الله في طلب فان ناصره عجز وخذلان كو ام سوخنا تي ديمبالي كو كينن كول يالا نا خامتاني غاتش رك مولاي ديمبالي نا كول يالا مو تا ديمبالي كين يرجو الى ربي دا فاي ديلو سي بوروم ويتجو اليه مو ويرو سي موم استعيذ به من شر هذا المخلوق الذي هو ابليس دي مسلو سي يالا سي هاي من ديف بيغا خامتاني موي ابليس نخ نونام لا نخ بوغلو كو لو با ابليس باكا يالا داخي الجنه لول لا واخ لأقعدن لهم صراطك المستقيم yoon bu jub bi daal lay bañ nit ñi nit ñi jaar fa ndax ku jaar ci yeneen beneen yoon bu dul yoon bu jub rek moom loolu gërëm loo na ko kaana kaana mutaallimun yataraddadu ila aalimin fi fi xurasaan bàyyi di nettali xikaaya boo xamante ne ndax wax na ne al xikaayatu jundun min junudillahi xikaaya nettali dafa nekk lëlu xare la ci lëlu xare yàlla yàlla mun na cee jubal ku ko neex ne am na benn jàngkat boo xamante ne daan jàng ci benn borom xam-xam ci dëkk bu tudd xurasaan حتى حفظ فيه أربعة آلاف حكمة حتى حفظ من فيه أربعة آلاف حكمة بمو كليتي موم لطلق نينتي جنة خم خم حكمة بيجري فلما ودعوه للرجوع إلى وطنه بمتا قوسر بينكم من جالو دكم قال له ذلك وقت وعلمك شيئا أفضل من جميع ما عندك لنا الجنجل لأنه لو خمنتني مو جن لب لنا خمنتني جنجو بجمن مو أربعة آلاف حكمة من الحكم hal fii bilaadikum iblis ndax seen dëkk iblis a ngi fa qaala lahu naam suñ dëkkee iblis a ngi fa qaala hal yuwaswisu lakum ndax daa leen jax-jaxal yenn saa yi ci jaamu yàlla ak lu baax qaala lahu naam mu ne danañuy jax-jaxal qaala lahu ida waswasa lakum aduwullahi ma la tafaluun noonu yàlla bi di iblis bis bu leen jax-jaxalee lu ngeen def qaala narudduhu dañ koy delloo qaala ida raja mu ne bu del si waxtee qaala narudduhu ñu delloowaat ko qaala ida raja aydan bu del siwaatee qaala narudduhu ñu delluwaat ko qaala lahu laa taqdiruna ala raddihi yéen amu leen kàttan boo xamante ne mu ngeen cee delloo iblis innahu yaraakum iblis mi ngi leen di gis wa wa qabiluhu moom ak moom ak eh, giiram min haysu laa tarawnahum foo xam ne ngeen mun leen a gis walakin ida waswasa laka bu la bu la jax-jaxalee bu la jax-jaxalee moom noonu yàlla bi fa kun ka dayfi da nga mel ni gan bi ida sata alayka bu rabbil manzili ni kim iblis bu la bu songee sa kaw te yow mënoo koo delloo na nga mel ni gan boo xamante ne dafa dem kër ki koy ganale mhm. bu ko xaj bi songee nu muy def istajiiru bi rabbil manzili mhm. borom kër gi lay dimbalikoo bu ko defee mucc laa yubashiru kadoo bi nafsi du jàkkaarloo kël bi xaj bi jonjowante moom ak boppam mhm. anta idaa waswasa laka iblis iblis nag bu la jax-jaxalee iltaji ilaa rabbihi na nga wéeru ci boromam yëg fii ka sharrahu boromam boobaa dana la musal ci xayam qul aoudu billahi mina sheytaani rajim na nga wax aoudu billahi mina sheytaani rajim ku fi dem kër xaj song la fa yow mënoo xeex ak xaj waaye boo taxawee ci gannaaw borom kër gi mucc nga iblis it yàlla mooy borom yàlla mooy borom te moo ko ëpp kàttan bu la songee rek boo delloo ci yàlla yàlla musal ci moom danaa delloo ci yàlla mooy nga awdu billahi min shaytaani rajim uduuni astajib lakum dégg nga wa awdu billahi min shaytaani rajim waaye mu ne awdu billahi min shaytaani rajim yaa ngi musu yàlla ci ay hay ay shururu ala aqsaami mu ne hay ay xeet la ay façon la charun yataallaqu bi diinil mari am na hay boo xamante ne ci diina diine astem di diine nit ki la aju imma kufrun mun naa nekk nit ki nekk ci diine ba pare weddi aw ibtidaawun wala mu indi ci diine ji loo xamante ne bokku ci aw fisqun wala mu indi ci kàccoor aw kabiratun wala bàkkaar bu mag aw saxiratun wala bu ndaw kullu hadi masaibun fi diinil mar yi yooyu yëpp ay musiba la yoo xamante ne ci diine ji lay wàcc ci diine nit ki aw musibatun fi badanil abdi wala musiba boo xamante ne ci jëmmi nit ki lay wàcc maradun mu nekk feebar boo xamante ne aw zaminin wala feebar boo xamante ne dafay sax feebar dafay diir ak jamono lay daw aw doofan wala lottu aw kasarin wala tawet aw jugnun wala tapet aw aw fii aw fii maalil abdi wala nattu bi nekk ci loo xamante ne ci li jaam bi moom la ka maradil awlaadi comme feebar ak ay doomam mawtul awlaadi dee ak ay doomam wa faqdil amwaali wala ñàkk ci alalam kullu hadihi masaayibul abdi yii rek ñooy ay yi nga xamante ne danay jot jaam bi yastaada billahi yéen wiyeen yastaada billahi min jamii sharrihi bu musloo yàlla nag mi ngi muslu yàlla ci mbooleem xeetu xay yi charun ay boo xamante ne yarjaw ilaa diini dafay dellu ci diinaam wa charun yarjaw ilaa badani wa charun yarjaw ilaa maalaw nit ku nekk ñetti xeetu xay la am xay boo xamante ne ci diinaam lay dellu nga nekk jullit bu baax di julli di oor di aj di joxe asaka ba mun a baax ba doole si jël tariqa tijaaniya muy naafila ci yow loolu lu baax la boo demee ba loolu lépp nga weddi لول مو محيب ومقلب ما تخ باي لي وحنا واحرص على الأوقات أي حرص إن واحذر من أن تبلا بلا نقصش لأن هو تيجي يقول إن نتو ولا نتو وانيكو نق لول نتو وانيكو لا تحيب ومقلب بين هاي موي ها هاي سجمو نيكي نيكي تابت هاي ومقلب نقدر نقول الجاي دور نيكي موي مرجل ولا متيال نقطة تيال مونت عم نبا ما بعض الخير على أهل الكسل تاي تكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان ويساكم با والناس سوري تيال نقطة تيال مستعم نبا wala xay bi nekk ci lim moom ay doomam wala këram daanu wala mu am oto mu accident wala mu am alal ñu sàcc ko loolu lépp xay la ñetti façon xay yooyu la nit ki am te yàlla boo ko musloo ci yooyu yëpp ba aoudu billahi mina cheytaani rajim da ngay yéene mbooleem xay bu mun a dal nit yàlla na ma ci yàlla musal kon aoudu billahi mina cheytaani rajim dégg nga ilaa maa lahu ci ay xéewalam qiila suratul istiaada ñenn ci borom xam-xam sufiyankee yi nee nañ al istiaadatu façon bi ñu koy waxee nii tubaayul maarifa dafay uteeg xam yàlla ndax ku dem ba seede ne lu dul yàlla amu fi lu dul yàlla neen la ala kulli cheyin maa xala allahu maa xala allaha batilun lu dul yàlla neen la kon kay looy gisee cheytaane bay naan aoudu billahi min cheytaani rajim bàyyi dana ko layal mën nañ ñenn ci borom xam-xam yi dinañ wax aoudu billahi min cheytaani rajim dafa wuteeg xam yàlla lenn al xawfa min gayrillahi tabaraka wa taala la yarda bihi al aarifun ndax ragal keneen wala ragal leneen lu dul yàlla ñi ñi xam yàlla nanguwuñ ko nangu luñ ko seen bopp leen nag laa yarawna xeyra llaahi tabaaraka wa taala ndax seede wuñ am ami keneen ku dul yàlla walakin bàyyi mu ne walakin wante hada adabul ma allaahi tabaaraka wa taala lii teggin la ak yàlla kese taala xaytu amarahum ndax yàlla moo ñu digal ci alquran ne wastaid ida qarat alquran fastaid billahi min asheytan irajim kon ki nga xamante ne nag moom seedewul am ak leneen lu dul yàlla kooku xalit aoudu billahi min asheytan irajim waaye ki nga xamante ne jugee na ci fanaa boobu ba ñëw ci فناء بعد الحجاب نحو من الكمال وتبدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شكرا ومحبه لانه يتبع اوامر الله تبارك وتعالى والعبد باي من الجانب لا بد ان يرى ذلته ومسكنته شوف يا مبترف تانجم فاو مجسكو غيس كو سي ديغنتي لوخاي بروم تبارك وتعالى ان شاء تجبر على غيره جانب لي بوغ نيهي muy مبرو ci كاو moromi جام واي ci كانو يالا دو دارا بو war faa mbëru wa amma inda xaaliqi fa huwa miskinun daif miskin la bu an kulli shay'in hatta iblis ad-da'if istajara billahi tabaraka wa taala mu ne iblis mi nga xamante ne moo gën a lottu sax dégg nga dafay dimbali koo yàlla ba ko yàlla buggee buggee dàq mi ngi koy dimbali ko xaalu moo tax bàyyi mu ne gaañi ci borom xam-xam yi nee nañ xif min allahi tabaraka wa taala jàm bi na nga ragal yàlla ndax lan li shiddati iqaabihi ndax tarak mbugalam yàlla moo am doole moo am kattan mbugal ku ko neex nit ki war na koo ragal ngir tarak mbugalam wax xif ممن يخاف الله لدعوته نغرغل كيب كورغال يالا ناخ نيانام ناخ نياني كون توغ امو دارال لي دوخ سي ديغنتي ماك نانغو بوغي نيان مولاي نانغول وخيف ممن لا يخاف الله نغرغل كيب كو خامتنا رغال يالا انه لا يهاب شيئا ولا يتورع عن شيء فغور ولي دب رغال دا دب رغال نيت ني رغال رغال يالا رغال كورغال يالا ngir ñaanam ragal ki nga xamante ne ragalul yàlla te loolu lépp jàmbi mënu koo génnee ci ragal yàlla ndax yow kooku ngay aarif bi nga xamante ne seede na maarifa ku mu ragal kenn yàlla rek la ragal ndax ragal yàlla moo ko yóbbu ci ragal leneen lu dul yàlla ndax leneen loolu amul leneen loolu ci yàlla la bokk comme kay ragal bi benn la rek ida al istiaadatu billahi taqaw taqawwin billahi wa idhaarin lil maskanati di muslu yàlla ci seytaane dëgërloo dëgërloo yàlla la te yàlla rek mooy wal inna allaha wal qawiyul matin yàlla mooy ko dëgër wa idhaarin maskanati te ak feñal sa torox tangé ci kanamu yàlla wa tadalluli ak soufé soufé lu bayna yaday xaaliqi hatta yujirahu ba yàlla dimbale ko min hada al adwi ci jaamam bi wala tubayinu al ma'rifa bay mu ne wut ak maarifa te wut ak mom ci ma'rifa la bok bal adabun ma allah tabarak wa taala passé na foofu sax teggin la ak yàlla te tasawuf lépp teggin la as-sufiyatu kulluha adab an faaqa fi adabi faaqa fi tasawuf yoni sufyan ke lépp yoni teggin la kula la ëpp teggin rek mo la ëpp mo la gëna nek sufyan ke ومن كان مقامه باي باتاي باغال نيغا خامتاني دانيو واخ ني دانيو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتاخ من من كان مقامه انه لا يرى الشيطان كو خامني مقامه موي ني دو غيس شيطاني ولا يحتاج للاستعاذه كوك سوغلو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعض العارفين يعني تي عارف يقولون ني واخني نحن انا قوم لا نعرف الشيطان ñun ay nit lañ ñoo xamante ne xamuñ seytaane wallahu yaqulu inna ibadi laysa lak alayhim sultan yàlla mi ngi naan sama jaam yi ma xam dëgg dëgg te dëgg wa sama jaam amoo benn doole ci ñoom mënoo leen a noonu ki nga xamante ne gisul seytaane te seytaane mënu ko noonu kooku bu ko neexee mu awudu billahi min seytaane rajim ci ci lekk gi koy def mooy ki nga xam ne dafa xiif waaye bu xiifut kay kenn toggawu la lekk su ila rasul sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko am waswas ci seytaane fi salaat ne ko li nga xama jax-jaxal yi nga xamante ne seytaane nit ñu koy defal buñ nekkee ci biir julli ci biir julli ñi laaj ko ci xaala mu daal di wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tilka mahdul imaan yi loolu mooy gëm yàlla bu sell boo xamante ne dara jaxasoowut ak moom ndax inna saariqa bàyyi ma wax mu ne sàcc bi laa yadxulu baytan laysa fiihi shay sàcc du dugg kër goo xamante ne dara nekku fa mais ñuy fàttali waxam bu mu waxoon ne bàkkaar yëpp benn cosaan la am mooy alxaflatu sàggane yàlla mu ne sàcc sax du dugg kër du dul ne waa kër gi ñu ngi nelaw wala dañoo sàggan bu nekkee ci leneen ngay teg marché di seetaan kay ba amuñ joti dara sàcc bu ko neexee dugg ba génn te duñ ko gis dégg nga kon seytaane di dugg kër goo xamante iblis sàcc di dugg kër goo xamante ne lu ñuy sàcc nekku fa kon ku yéeg ne iblis mi ngi koy jax-jaxal buntu pour sant yàlla la waaye na muslu yàlla ndax bu amutoon tuuti gëm-gëm iblis dugg ci الكفار والمنافقون لا يرون وسوسة الشيطان باي مولين يفيري اك نيغا خامتاني موي منافقي نيوم دي نيي غيس دي نيي غيس ليغا خامتاني موي جاخ جاخال الشيطان ناخ نيوم لي نيك نون شيطان لو شيطان بارنا سي نيوم با بار مي دي دم دي ليغي سي نيغا خامتاني باراي كو سي نيوم لان الشيطان فريق من امرين شيطان بارنا سين بير كل من يرى الوسوسة فهو مؤمن حقا كيف كو خامتاني مي توك دي غيس دي غيس ني شيطان مي كوي جاخ جاخان دي كو او تي لو خامتاني يالا بوبو كو لا سنت يالا خامنا نكو جولي دغ دغ لا من محض ايمانه يجد الوسوسه غير سال لا غنغم ليغا خامتاني امنا كو سي خولم لول موتاخ موي غيس ليغا خامتاني موي جاخ جاخان ليغا خامتاني شيطان مو كاي اندي لان العدو لا يحارب الا من كان يعاديه نون بي دو خيار لودوت كيغا خامتاني داف كوي نونو اما من يوافقه اما من يوافقه فقد فرغ منه كين خمانتنا يعني دبو موغوتيو موم جي دار لان لا لاي تخ جخالي لا يحتاج للاستعاذة بو صلو بو خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يوما الى المسجد ين صلى الله عليه وسلم بس جيننا دنج جمعه فلقيه ابليس مداجي دجي ابليس قال له ما اتاك الى مسجد هذا انت بلا ابليس لاي نفس مو جمعه لولا في عندي قال له لتسالني دا في نيو رك بو دجي يوم قال من ابغض الناس اليك Eh, yonent ya, bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kan nga gën bañ ci nit ñi xaalawu anta yow laa gën bañ ci nit ñi moom dafa noonu waaye dafa wane noonu bi jàmbaar la côté boobu ndax jàmbaar moom da ngaa war a sa noonu waaye baat yoo xam ci gannaaw rek du baaxul xaalawu suma man kan nga gën bañ gannaaw man mu ne qaala shaabun bi taatillahi tabaraka taala as ndaw soo xamante ndaw ndaw boo xamante dafa solu dafa sosu si topp yàlla kooku tamit sama noonu la ñi ma ñi mën a bañee ko bañee ñi mën a bañee ko bañee xaalawu ñi ma tannaaw ummati min asalaati fi ljamaa lu sama xeet bi buggaloo leen ñuy dem ci jumaa ji di dajale mbooloo mi di julli foofu qaal li annahum ida kaanu fi salaati abqa mahmuman xatta yusallimu bu may buñ nekkee di julli mbooloo yàlla daf may nekk di ma baxal ci ndox lu tàng ba ba ni ñuy ni ñuy salmale way tafarraqu min asalaat qaal li ma tam min asiyaami lu tax nga leen di teree woor bëggoo ñu oor weeri koor qaal li annahum ida daxala ramadaanu wa sulsiltu laa ataxarraku mudada ramadan ndax ramadan wéru koor bu teroon dañ may tënk takk ma ay ay chaîne duma ma yëngatu ba ramadan bi jeex qaala li ma tam naaw minal jihaadi lu tax nga leen di tere xeex ci yoonu yàlla qaala udaaw fi qaydin maa lam yarjiu an al jihaadi duñ du dëñ ci tënk bi ma tënk li fekk jógeewuñ ci xeex ci yoonu yàlla buñ demee qaala li ma tam naaw ummati min as sadaqati lu tax ngay tere sama sama ñooñ ñiy saraxe ngir yàlla قال وجعلوا في قدر محموم حتى لا نعم من صدقته بني سرق رك يلا دك ماي ساني شيمبانو مو خمانتني لو بو تانغا سي نيك ندير بوما لين تري صدقه فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه صلى الله عليه وسلم دادي كو جان دادي كو جابو وكت وكت وكت وربطه في احدى سوار المسجد ينتبه دادي كو تنك تكوم دغر سي بن كينو سي كينو جماجي قال انه يتركه حتى الصباح ويجتمع ويجتمع الناس كلهم ويجتمع الناس كلهم ينظرون اليه انتم اذا لا تكشوا جماعه بن دغر بن نيب دجلو غيسلا خمنا بعد ذلك تذكر قول سليمان عليه السلام انتم صلى الله عليه وسلم دادي خلاص لي خمنتني انت على سليمان وخنكو وهب لي دي وخي يالا يالا نعم، ما ماي ملك نغور بو خمنتني لا ينبغي لاحد من بعدي نغور بو خمنتني كين دوغ ام سما غناو تنغور نغي بوكون نجي ني نوب نوتون جيني با نيكوي ليغير فتادب رسول فتادب رسول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 بسم الله اختلفوا فيها اوتي ننتي ينبر مخمخمين دون اوتي ننتنا اختلافا كثيرا اوتي يبري هلي آية من الفاتحة نخ آية لك فاتحة أو آية من كل سورة ولا آية لك سورة هناك أو آية من القرآن فقط ولا بين آية لك القرآن اوتي ننتي لا خاج لك آية القرآن نخ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وإن لا تربي سليمان جندون بلخيس نقول لا تربي من جلية سليمان تمني تنبليتي بسم الله وليس آية في القرآن بآية القرآن وحين ينلا وليس آية في الفاتحة دو آية فاتحة ولا سيما في غير الفاتحة وهم لك لنا لوج الفاتحة ومنهم أمن سنيم تبرم حمقمي وعلى رأسهم الشافعي نيوخ وخجو الشافعي موت من من قال أن من قال إنها آية في الفاتحة من آية التي في الفاتحة ومنهم من يقول إنها ليست آية في ليست آية في الفاتحة دو آية فاتحة ولكن ابتلي بها إن كوكما سي فاتحة وإن آية فاتحة والحجة باي من الله يجنك من أن البسملة بسم الله من الفاتحة فاتحة ربكم كونها قد وجدت مكتوبة في المصحف دخفك نيجوني بندقول شيء تيري بينا خمان تنا ما المصحف برسم القرآن برس برسم القرآن شيء كم نيج بندع القرآن ما أنا آية فاتحة وما ليس من القرآن لا يجوز لا لا لا يجوز كتابته برسم القرآن لبوك تفاتحة دعنا نيج بندقول كم نيج بندع القرآن أنا أقول الحامد يريد وقت باينة ومن إذا قال قولا في مذاكرة فما إلى غير ذاك القول يلتفت باي مسألة قلوب نمبر بري بتي وحي جس جس كن دو كن دو جس جم ci benen gis gis ñu du gis jëm ci benen gis gis bismillah ci fatiha ak bobu ci loolu lañu and na bayru lo waxu ko ci baneexu bakkan daf ko tek ci xam xam wa abdu أنا laqiya ayn al ilm wa jaahu bi biduni wa dina وهذه وجد مكتوبة على رأس كل سورة هذا أقوى حجة أنها آية في الفاتحة باي من فكنا نقول من بيندي القران نين بيندو كوم نين بيندي القران سي سوره بو نيك لول موي وانا ايه لا سي فاتحه وايه في كل سوره ايه لا سي فاتحه وايه لا سي سوره بو نيك تي القران وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جيري نان سي موم مون ما كنت لكم من عارف دي خم انتهاء سوره مبدا وابتداء سوره الا بسم الله الرحمن الرحيم دو مون خم السوره جيغنا بنن كوماسنا لدن بسم الله الرحمن الرحيم دي كوتيوا كون عند راس كل سوره يقول جبريل في بوبي سوره بنك جبريل دانا بسم الله الرحمن الرحيم فيعرف مدارخا مؤمنا تبي صلى الله عليه وسلم ان هذه بدايه السوره للي ما يتعمل السوره بنا خوانت من غوي واتر والحجة الثانية باي فريق قطعي لنا نعلى الليل أن البسملة ابتداء بسم الله تبارك وتعالى بسم الله تنبل لك تري يالا من الخمنتني مو مغ مو والله تبارك وتعالى أمر أنبياءه يالا من الخمنتني تدنا كويم ak sallam digal na ay yonentam jek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an yabda'u bi bismillahi fi kulli umurihim yonent yeb jiitu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla digal na len lépp lu ñuy commencé ñu commencé ko ci bismillah qala nuuhun bismillah mujraha wa mursaha ci galam bi bam ci yéeg وقال سليمان انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي سليمان لولا وخون لايتا من جوجي سليمان بسم الله الرحمن الرحيم لتي بن مومن دي واخا ني مي واخا بلقيس ان نيوم والنبي صلى الله عليه وسلم كلف في القران بان يقتدي بجميع الانبياء فبهديهم يقتدي يعني صلى الله عليه وسلم يلا دفكو توغي القران دفكو توغي القران نكو yenent yu ko jiitu woon yëpp na leen roy saxal ko ci alquran ci seen njub bi nga xamante ne mayoon naa leen ko na nga leen roy ci loolu pour jàngale rek ne roy lu baax mbaax rek la فوجب عليه مدار وجه مؤمن أن أن يبتدئ بالبسملة المتعملة بسم الله كما ابتدأوا بها قبله كم نيكو جيتو أيانتو نيكو كماسيون وهذا يوجب عليه البسملة ويوجبها علينا نحن باي من نغير ديغال بينكو ديغال مو توك يانتو يكو جيتو moom mucc war ci moom lépp lu muy commencé mu commencé ci bisimilah mun tamit ñun tamit mu war ñu ne lépp lu ñuy commencé ñu commencé ko ci bisimilah ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko def ittabiu yàlla moo ko wax na ngeen topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an yattabia man qablahu min al-anbiya wa nahnu waajibun alayna an nattabiahu sallallahu alayhi wa sallam war na ci yonent bi mu roy yonent yu ko jiitu woon ñu nit war nañu ñu roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man radiba an sunnati falaysa minni roy yonent bi ci topp sunnaam la dëkku وخمم لنا leneen السنة ينت صلى الله عليه وسلم wa sallam إذا يجب على يجب على النبي صلى الله عليه وسلم الابتداء بالبسملة وتجب علينا نحن تبعا له وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله فقال مدارك الدنيا اسم ترلى من أسماء الله ترلى تري علي مجمد وليس بينه وبين الاسم الأعظم الكبير إلا ما بين بياض العين وسوادها dara tàqalewu ko moom ak tur yàlla bu màgg bi lu dul li tàqale weex weexu bët bi ak li si ñuul bismillahi rahmaani rahim ibtada alquran bi xarfi ba alquran ñu ngi ko tàmbalee ci xarafu ba li tawaaduihi wa dillatihi wa maskanihi ndax wa maskanatihi ndax xarafu ba dafa suufeel boppam moo tax ñu commencé ko lam yatarafa kal alifi yëkkateewut boppam comme alif ni mu yëkkateewut bopp ni mu yëkkatee boppam ismullahi mushtaqun min assumuwi tur yàlla ñi ngi ko xaree ci baati assumu bi firi kawe أو السمة ولم ولا من درجة إدارة لأن الاسم يسمو مع مسماه ترب نك دفايك عند ترمي أو الاسم علامة لمسماه ولا ترسخ من درجة لتكين كتودي ولا صح أنه مشتق من السمو باي من اللي جنوير من اللي السمو بي في ركاب لين كجرين لهذا اختلاف أهل السنة والمعتزلة على اسماء الله تبارك وتعالى هل هي علام أم علامات معتزلة أمن السنة أمن يوانت بمتي wuutee ci loolu ñu ne ndax tur yàlla yi mandarga la ci yàlla la wala dafa nekk tur yoo xamante ne alaam la rek xamtuwaay la ci yàlla ahlu sunnati yactaqiduna an asma allahi alaamun la alaamatun ahlu sunna ñoom liñ gëm fas ko te wax ko mooy ne tur yàlla yi ay xamtu la ci yàlla moom la ñuy xamee yàlla waaye nekkul ay mandargaam wal mu'tasilatu yactaqiduna mu'tasile yi liñ jàpp mooy أسماء الله علامة له أي من قال برموم يعتقد أن الله أزلا ليس له اسم أي الله بلا درجة مستعمتون إنما خلق الخلق فسموه بأسماء بأسماء وهذا مردود عند أهل السنة باي ما يلا معتزلة يلا إيه شيء أزل أموتون بنتور waaye bu ñu demee من bind mbindeef yi mbindeef yi ñoo ko tuddee tur yi ñu fi fekk yëpp bàyyi mu بل أسماء nag ñun sunna delloo باي وخنك من تري الله لتشان ولا ليغل لم يزل الله تبارك وتعالى متصفا بجميع صفاته ومسمى بجميع اسمائه من الازل الى الابد يلا دد مكو دي ملو مبولم ملو ميغا خمانتني نينكو كاي ملالي دي تودو مبولم تورم ميغا خمانتني تودي نينكو تودي نكو بوبم من الازل الى الابد بلا دار دي خاو بوفو دار نيكاتو والاسماء فيها اسماء ذات واسماء صفات واسماء افعال تري الله برنا اي فصول amna tur yo xamanteni jëmam di la ñeel am tur yo xamanteni ne turi melokaanam la am tur yo xamanteni ay turi jëfam la wa kullu fi xaqillahi tabaraka wa taala qadimatun azaliyya tur yo yeb ci haqqi ci xaq ci haqqi yàlla yu yag la yu cosaanu la wa fi xaqi gayrillahi tabaraka taala taariatun ku bil yàlla nak tur yo dafa bes ci yow al insan lahu ismun murtajal ma wujudi wa law asmaun tarad lahu misla rabbud daari tur doomi aadama bi amna tur yo xamanteni dañ koo dañ koo joor rek daal di ko dégg nga maa wujudi yi ba mu amee la ko a am ku nekk sa tur ba ma juddoo lañ la ko door a tuddee indi woo fi benn tur <laughs> wala ismaun taraat lahu am na ay tur yoo xamante ne dafay bees ci moom lu mel ni rabbu daadi ku tabaxut kër kenn mu ko wax borom rabbul xamiisi ku amagul yére kenn mënu ko woo borom yére bi rabbul kitaabi ku amul yére kenn mënu ko woo borom téere bi al aalimu ku jàngul kenn mënu ko woo borom xam-xam ashaa'iru waykat bi kenn mënu ko woo dina dafa mën a woy kullu haadihi al asmaa taraat lahu doomu aadama bi tuddoo ko waaye dafa dem ba fàggu ko ñu mu mu am ko yàlla nag turam yëpp dafay yàgg amul benn boo xamante ne daf koo fàggu gannaaw dara ndax bu waa mata di lay doon te yàlla huwal kaamil am allahu tabaaraka wa taala fa laysa hakada yàlla nag melut ni nit ñi mel بل هو مسمى بجميع أسمائه أزلا ومتصف بجميع صفاته أزلا وهذا أقوى ما يرجو العارف في جانب الحق تبارك وتعالى حيث سمى نفسه الرحمن الرحيم الكريم الغفور العفو المعطي yàlla nag melut noonu melloo kaanam yëpp daf koo melloo balaa dara turam yëpp daf koo tuddoo balaa dara bàyyi mu ne lii mooy yaakaar bu gën a màgg pour aarif bi nga xamante ne gis ne yàlla tuddee na boppam balaa dara borom yërmande ki baax ki mun a jéggale كمنا بالي كمنا ماي ولا وجود غيره يحتاج لهذا دينغ كل رجال سخلة ولي لما سمى نفسه بهذه الأسماء وطرأ الوجود واحتاجوا إلى رحمتي وعفوي وكرمي هذا يقوي رجاءهم يلا سخلة ولي لك وعيب مدين ببين من دي فيه جسنا من دي بنك سخلة نير ما دي الله سخلة نير قلم سخلة ترانغام لول مويد دقل يا كان من دي بنك بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ بسم الله تبارك وتعالى لين فنة لموي ماني جانج دي تامبلي لمي جانج توري الله تبارك وتعالى أو نقرأ ولا ننيب الإنسان يبتدئ في كل شيء بسم الله دومي آدم بي لوني داكو كوماسي تي توري الله أول ما نستفتح المقالة بالذكر حمد ربنا تعالى لين نيك أوبيسو نيوخ موي توري الله تبارك وتعالى والفعل معروف محذوف فعل بي نغا خامتيني موي نقراو ولا اقراو فعل مضارع بي داي خمن نكو موتاخ ني حذف كو موتاخ ابن مالك واخون نا رك وحذف ما يعلم جائز لوني خم بو نكو بو نكو فاري موم لوتاخ كين لاجو دين اذا كان على مذهب البصريين يقدر فعلا في مذهب بصريين في نحو نحاتي دنجكو تقدير فعل واذا كان على مذهب الكوفيين يقدر اسما كوفيين نيوم دنجكو نتل تور على كل حال المتعلق محذوف اللي ما اجيش بسم الله بينكو حذف نخفع ال كملكو بصرينا وخي ولا اسم لا لول الامصا ولا امصا ولا مين مين افانسا نينكو خمكو موت عني افانسا هل انت مريض انا مريض جاروكو انا المريض رك انا جالو مسلسل مرض وكل عامل يقدر بما يناسب عمل ما يناسب عمل ما يناسب عمله عامل بنين jumtuwaay bu ne dañ koy nattale comme li nga xamante ni dafa dajeeg moom rek nahnu al an naqra'u nahnu al ana naqra'u naqra'u bismillahi mutaalliqun bil basmalati al an ñun comme mbooloo lañ lu ñuy taqdiye ci bismillahi bi mooy naqra'u ndax mbooloo lañ te nuun bi nuunul jamee la nahnu li nahnu li aljamaa naqra'u bismillahi ida kunta waxdaka boo nekkee yow kese boo ne bismillahi loo li ñu fi nattalee effacé ko mooy aqra'u ku nekk ak saxaar rek bàyyi génne leen misaal bu gën a jege إذا كنت تأكل أكل بسم الله بويلك ما يلك بسم الله من كسر إذا كنت تلبس بويسول يو كسر بسم الله أشرب يعني نان ما ينان بسم الله أركب ما ينور بسم الله المقدر لنور النتلتي بسم الله يناسب العمل دفي عندك جف جنا خمنتني يعمله القائل كي جف من غيره كده أنا بقول جانغ بقوله نقرأ ولا فك يو كسر أغلب لهم من تجيب تجيكم بسم الله أقرأ ولا بسم الله الله علم على واجب الوجود المستغني عن كل ما سواه الله علم لا تربو خمانتني بو كو تودي رك خمنا يالا رك لنجي جوبلو بو تخ تودي امون كين تود بي يالا رك لا جيغو امون كين تود الله امر لانه الاسم الخاص بالذات العليه دينا اسم المرتبه الله تبارك وتعالى من تورلا بو خمانتني علم على واجب الوجود كين خمانتني امام دا فور مو يالا المستغني عن كل ما سواه كدويلو ولسكنن كرمو نيكو سوغلا جيم تي الله ويا الله سوغلو جيم تي كين المفتقر اليه كل ما سواه غا خمانتي كون سوغلا نا داو جيم تي موم تاوم سوغلو كين اختلفوا اختلفوا وتينن في الله كي باتو الله قالوا انه علو مرتجل هكذا اما ني ني دنجو جورو ني ري واخو الله امو بن سي لوم جيجي امو ني سي اليها لا جيجي كوم نيكو ني ني واخه رايسي رؤيسي بويه bàyyi mu ne si bu wéy gis nañ ko gannaaw bi nga xamante ne faatu na fil jannati mu nekk ci aljana baada mawti fa suila bi ma daxaltal janna noo def ba dugg aljana qaala bi qawli inna allaha arafa almaarif wax ji mu wax ne lu nekk maarifa rek baatu allah moo la gën a nekk maarifa loolu moom mu dugal aljana wa qiila min aliha ida abida am na ñu ne allahu ci baatu aliha la jugee buy firi nit ki bu jaamoom al ilaha al maabuda wa qiila min aliha ida taxayara am na ñu ne ci aliha bi nga xamante ne موي وليها ركبي في حيران شلا جوية نيت كو خمانتين دفا قلم لأن العقول تتحير في عظمته تبارك وتعالى ني واخ لول امنا نلاي دا خني نك خلي دا فاي گلم سي ماغا يالا جي تبارك وتعالى واي باي من الله مرتجل ليس مشتقا هو المشهور هو المعتمد بات الله خري وين كو سي بن بات واي دنجكو دنجكو تيتو نون رك واخكو جيرين كو سي بن بات لول مو گنا سيو تي سي لول لا نيويرو نون جيرو لا نيويرو ما تسمى بهذا الاسم بهذا الاسم احد غير الله تبارك وتعالى كل يالا مستو توري الله تدو مسام كنن كو ني تودي كو ريك دنجو تودي داس عبد الله ولا نانغام واي الله امر كان العرب يفسرون الاله بخالق السماوات والارض عربي نيك گم يالا دان نان فري باك الله نيكي موي كيغا خمانتني مو بن اسمان بن سوف نخ يالا مو واتي القران ولا ان سالتهم بولن لاجي نيو ني ريري ويدي من خلق السماوات والأرض أنا كان مؤمن أسماني جرم نيا سوفي جرم نيا لا يقولون الله لا لكم الله مؤمن بند مو يلا كانوا يعرفون هذا خمون نلي بوبا نلي بنا يب يلا كبين إنما كفرهم جاءهم من قولهم ما هذا إلا بشرا سيني يبلغنك ويدي كمي جوجي تشيلا نرك موينه انو خولنا يلن تبي ابن عبد الله كيني لكم نيون رك انو خار نيون نيلن ملاك بنيون نيون ملاك تبي دي مونا دي مونا روي تشي مون ملاك يبوكو façon nit rek lañ la mëna yoni te ci buntu xébel la rek ama anna allah wa khaliqu samawati wal ardi وهو يجير ولا يجار عليه ويطعم ولا يطعم فكل الكفار اقروا بهذا واعتقدوه ولكن كفروا برسول صلى الله عليه وسلم لا يالله مو بن اسمان بن سوف موي ديمبالي تا موي ليله كين منوكو ليل يفر يب غم نن لول سخال نانكو واي لي ندي ني مودي نك اي يفر موي ويدي بو ويدي يالله محمد صلى الله عليه وسلم gëm yonent yëpp gëm yàlla te gëmoo yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam zéro lay taxawee arrahmanu sigatu mubalagati min arrahma siga la boo xamante ne dafay réel di màggal di xëcc li nga xamante ne mooy yërmande yàlla tabaraka wa taala ne mooy borom yërmande wa rahmatu yërmande buñ ko firee ci arab mooy riqatu xalbi qalbi indama yushahid al insanu indama yushahidu al insanu al miskina fi xaali darurati yatallamu qalbuhu yërmande moy sa xol bi sew bi mi sew ak ñewantal bi mi am ci bo gisee nit ko xamante dafa nekk ci heure yi ñu ci métti loolu loolu mooy rahma min dalik fa yuhsinu ilayhi mu yeram ko ngir loolu dal di ko rafetal jëm ci mom wa hada mustahilun fi haqqi llahi tabaarak wa taala loolu dafa jom ci haqqi llahi tabaarak wa taala wa kullu sifatin sifa bu nekk qul naa innaha mustahilatun fi xaqillahi tabaraka wa taala laha bidaayatun wa nihaya bépp melo bo xamante dañ ne li dafa jom ci yàlla amna tàmbali amna jeexital xanaa tàmbali bi kay mooy nit ki balaa nga koy yërëm sa xol daw bu muy sa sa yaram di daw ci moom ngir xaala bu mu nekk loolu moom dafa jomb ci yàlla waaye li mujj li nga xamante ne mooy li baax li nga koy naa defal gannaaw bu sa yaram dawee loolu moo jaadu ci yàlla waaye yàlla di métital ne jaam bi mi ngi lii loolu moom dafa jomb ci yàlla moo tax fal bidaayatu tàmbali bi mustaxilatun fi xaqillaahi dafa jomb ci xaq yàlla wan nihaayatu nag nga xamante ne mooy am gi jaayisatun kon moo tax majaas faaw ñu koy jël ci yenn tur yi ndax wa makaru makarna makarnaam wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha yàlla mu ne li ñuy fayee mbon mooy mbon yow ni nga def pour def bon yàlla du ko def waaye fin bi nga xamante ne mooy lor ki nga bu def lu bon ki nga ko war a def loolu mooy feemaa bi loolu moom nangu nañ dégg nga bi haqillahi tabaraka wa taala riqatul qalbi aw ta'allumul qalbi hada la yajuzu wax ne yàlla xolam dafa métti wala xolam dafa sew ba mu yow loolu daganut في حق الله تبارك وتعالى وهم الاحسان رفت الدين خمنتني نك موي نيو سي غناو يرم ديغا يرم نيت كي غا خمنتني موي مجيغي لو موم دغانا سي حق الله تبارك وتعالى الرحمن الرحمن المنعم بجلال النعم جلائل النعم موي كي خمنتني موي خيولي جامي خيتي خيول يا خمنتني نيو ماغ الرحيم الرحيم موي كي خمنتني موي خيولي جامي خيتي خيول يا خمنتني نيو غنا سيو غنا ndaw الرحمة صيغة بالغة الرحمن الدنيا ورحيم الآخرة يلا موي برم يرمان لك أدنى واي موي برم يرمان لك الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد وسلم برهام باء وراء ألف ثم هاء ميم مجل فيض تيجان جخن يوينان